jëmale ci élection présidentielle 2024 yi nga xam ne moom la ñu dëg ma la loolee ñi nga xam ne ñuy waa conseil constitutionnel war nañu ci lu leer tranché ko ba bi nag nee na lii li muy niru nag mooy maître Amadou Sall ginnaaw moom ti ma ngi teg pression ñi nga xam ne ñooy àttekat yi nekk conseil constitutionnel yéene kaay gi di 24 heures ñu waa Pastef ñoom Ousmane Sonko jamono ji maanaam ñoo ngi alerté ci lu jëm ci révision exceptionnelle liste électorale yi ci élection présidentielle 2024 yi nga xam moom la ñu dëg ma la ñoom Ousmane Sonko jamono ji ñoom dañoo njort ne administration bi dañoo jot ndigal ngir nag saboté li nga xam ne mooy processus bi waaye nag ñoom ñoo koy ñaawlu ba fa ñaawlu yam te woo ñëpp jamono ji ñu daal di takku ngir nag daal koy encadré ñoom Ousmane Sonko waa Pastef ñaawlu nañ bu baax a baax noppi gi nga xam ne waa Sénat noppi nañ ko ci mbir mi ndax ñoom nee nañu lan mooy ndey ay réew yu baree bari ci diaspora ñu daal di koy exclure ci lu jëm ci wàllu mbind mi bi di 24 heures nee na dafa am processus bi yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy duñu xibaar nan ñu ñi nga xam ne ñooy waa société civile bi am na juróom-ñetti recommandation yoo xam ne ñoom daat nañu koy teg ngir nag jàmm mën a am ci élection présidentielle 2024 yi nga xam ne moom la ñu dëgmal lu jëm ci toog waxtaan dialogue loolee bokk na ci waaye nag indi ay yeesal ci lu soxal wàllum parrainage bi loolee tamit bokk na ci am accès ci fichier électoral bokk na ci ak yeneen ak yeneen journal bi di enquête xëy du ñu xibaar naan ñu présidentielle 2024 ak séegu la waaye nag soo moytuwulee tension bu rëy dina am ci biir benn bokk yaakaar dara ci allié yi journal bi nee na ñetteelu mandat bi moo ko nar a waral ndax malaise am na ci biir AFP journal bi nee na Idrissa Seck ki doxinam yéenekaay gi de Le Quotidien yor yor ci xët mu njëkk ma ñu fekk fa docteur Abdourahmane Diouf mi nga xam ne bëgg naa bokk ci élection présidentielle 2024 yi nga xam ne moom la ñu dëgmal moom docteur Abdourahmane Diouf daan nay wax ne fukki at ak benn yi nga xam ne Macky Sall def na ko ci bopp réewum Sénégal jëm ci wàllum kooma wàllum économie Macky Sall daf cee lajji lajji gu metti la Macky Sall lajji ci lu jëm ci wàllum économie ci fukki at ak yi mu def ci bopp réewum Sénégal kàddu docteur Abdourahmane Diouf la ma ngi ci xëtu mu njëkk journal bi di Le Quotidien yor yora yéene kaay gi di Les Échos xëy di ñu xibaar naan ñu ñi nga xam ne ñu yaa Pastef jamono ji dañoo créé ay bracelet bracelet yoo xam ne couleur parti Pastef moo fa nekk ñu koy jokkalante ci seen biir yéene kaay gi ne nag nee loole mooy kookali dëggantaan bracelet électronique yi nga ne moom lañ fi indi yéene kaay gi di Le Regard ñu xëy fekk fa maître Amadou milliards yu Prodac ñu ko fukki fan juróom-ñaar ci weeru avril ñoom poisson d'avril la ko tegoon yéen kaay gi nag nee ñi nga xam ne ñooy avocat Ousmane Sonko yi nee nañu gars yi dafa mel ni dañu leen a bëgg a piéger ngir nag ñoom ñu def appel waaye nag ñoom duñu ko nangu jamono ji la def kenn du leen ko tànnal yéen kaay gi di Direct News nee na élection présidentielle 2024 yi nga xam ne moom la ñu dëgmal kan ak kan moo ciy bokk ak kan moo ci dut bokk ndax Macky Sall mi nga xam ne nee nañu wurta sampan ndëndam dina ci bokk waaw wala déet Amadou Ba mi nga xam ne gars yi ñoo ngi wax ne bu Macky Sall sëmbul ndëndam Amadou Ba la ñuy jiital dina ci bokk wala du ci bokk Ousmane Sonko gars yi nee nañu ndax dina ci bokk ndax ci lu jëm ci wàllum procès appelu Mame Mbaye Niang bi man Sonko ay mbiram dara lédagula Karim Wade Khalifa Ababacar Sall ñoom élection 2024 yi danañu ci bokk wala duñ ci bokk ñoom ñaar seenu bokk day aju ci Macky Sall daal leen di am na amnistie te ki nga xam ne mooy Khalifa Ababacar Sall bu bokkul ci élection présidentielle 2024 Barthélémy Dias mënoon naa am sens waaye Barthélémy kay tënk mooy procès appel jëm ci wàllum Ndiaga Diouf yéen kaay gi nee na li am ba desal kàngam yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ci wàllum jamono ji dinañu bokk wala duñu bokk seeni mbir dara léerugu ci moo xam muy Macky Sall di Ousmane Sonko di Khalifa Ababacar Sall Sall Karim Wade Barthélémy Dias ba ci Amadou Ba yéenekaay gi di Direct News nee na li am ba des nag lépp moom dina leer ci weeru avril wi nga xam ne moom la ñu nekk yéenekaay gi di Walf Fadjri xëy di ñu xibaar naan ñu trafic drogue bu garaaw moo am diggante Médina ak Golf Sud ak nan la police infiltre li nga xam ne mooy réseau bi Samba bu yi ci la journal bi ñëw yéenekaay gi di Libération xëy di ñu xibaar naan ñu accident bu metti moo am ab bus bu jóge woon Dagana moo daanu am lu toll ci juróom ñoo xam ne ñoo ci faatu fanweer ak juróom ñaar am ci gaañu gaañu yéenekaay gi di xëy ñu xibaar ak di ñu fàttali conflit bi nga xam ne moo amoon diggante Sénégal ak Mauritanie gars yi naan ko événement naar yi 1989 journal bi nee na mbirum xeeta moo ko waraloon booba ak léegi fanweeri at la ak ñeent gi nee ñu bari ñoo xam ne fekk nañu ko ak ñu ci loru di ci andi ay témoignages yéen kaay gi du l'Observateur nee na lu jëm ci wàllum giita ngaas ak piccog mbaaloo gi nga xam ne moo am ci nappkat yi bu ñu ci jógul làmbaay mën naa ñaaw ndax lu jëm ci pétrole ak gaz bi nga xam ne dinañu ko exploité ci biir ndox mi ak jën yi nga xam ne ñàkk na ba marade